maire boobu ñu gis si parentère bi kooku nit njaay la. maire bi. waaw du dëmm du jinne waaye dafa wéradi. bi. maire bi ñu fekk ci parentère bi. Mhm. ba sappoor di ko sauver di ko wallu. Mhm. nit njaay la du dëmm du jinne mais daa wéradi. Mhm. nit ki wéradi na nag buñ ko waxee mooy koo xam ne anut ak xelam. waaye nag li biir ci biir loolu dafa am lu laxasu loo xam ne adduna bi ñu di seetaan programme bi yëpp xamuñ ne mbir Euh, voilà waxtaan bi neex na trop duma ci doyal waaye du ñàkk fi may teeralee rek mooy ñu gis ni fan yi semaine a ngi nii chaque jour muy taw vingt quatre heures si vingt quatre loolu ci période bi nii lan ci wàllu baatin lan lañ ci mën a jànge waa alhamdulilah xam nga tey sànq si njëlbeen wax nañ ko weer la boo xam ne maanaam si ngërmande yàlla nekk. Mhm. weer la boo xam ne weeru yàlla la mhm. ku góorgóorlu rek sellal tuuti di nga may-may ci yàlla mhm. ndax attention boo xoolee nit yàlla ñu yàlla may garaat yëpp Sénégal si weer bi la leen yàlla jox seen liñ moom mhm. seen cër ci yàlla ndox nag ku ko xam-xam ne wërsëg la nature bi boo xoolee alam bi cinq continents yëpp ndox moo ko wër moo ko téye rawatina Sénégal nga xam ne moom mooy jant Afrique bi. Mhm. Sénégal nag jant Afrique fan yëpp ndox mi mu fiy wàcc. Mhm. loolu dafay raxas dëkk bi. d'accord tidim tidim yi sobe gu bëri gi fi ne dukk bi ni ñu ñuy amuñ dara. Mhm. loolu la yàlla di jëlee. léegi nag ñi ñuy commencé waat dëkk bi di naat nit ñi di am xaalis. xaaju jaam yàlla di faju kenn dootu amati malaise. lii loolu lay signifier ndox mi fan yi balaa ñuy dugg si weeru octobre bi. Mhm. incha allah changement bu braaw dana am ci mi. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. bu ko defee yàlla dooleel ñu. ñu dem maanaam Qatar. dem jëli coupe du monde bi ñoo indi ko Sénégal match bi tas loolu rek moo ñu dese. yaa ngi ci point bu am solo. waaw a tëjee coupe du monde bi dafay ñëw. Sénégal day jël coupe du monde bi jël coupe du monde bi ci kàttanu yàlla. Sénégal man maa ko wax bind ko fan nga ko teg ci mën a fubal wala ci baatin. wala loo wala loo tëdd ñu gis la. suñ borom maanaam laa toogal mu wan mam nii jaxaraan wa yaxasatan bët ak bët comme yow ni ma lay xoolee nii. Mhm. Sénégal gàddu coupe du monde bi indi ko fii ci réew mi Sénégal. waaw waaw loolu bu war na neex de. loolu lañ ma wan Sénégal loolu rek la dese. Mhm. yàlla ko ba pare nag. Mhm. si weer bii lañ ko yàlla tànnal mooy safar bi. nga xam ne mooy weeru yàlla. borom xam-xam yi nag yëpp ñu yàlla may xam-xam seet nañ ko ba gis loola. waaye ku amul ndigal rek bu ci wax loolu laay ñaan ngir yàlla sëriñ parce que domaine la boo xam ne coupe du monde du sëriñ yi ndaw yi ñoom ñëpp danañ génn après waaw parce que maanaam si bonkal bi génn na waaw wax naa lancé naa défi waaw nee naa coupe du monde bi Sénégal da koy indi hmm. Qatar lañ koy jëlee indi ko fii Sénégal hmm. ñu siy puuk réew di si nganda ngandalu hmm. comme ko Brésil daan jëlee mel ni waxoon nga ko ci coupe d'Afrique bi jun naa leen ko si coupe d'Afrique bi bi ma nee coupe bi du ñëw waaye foog ñu dugal suñu loxo ñun Mm-hmm. ñun Casamance. Mm-hmm. bu ma ko waxee rek dañu am résultat. Mm-hmm. du dëgg. dëgg la moo tax nag gars nag bàyyi ay borom xam-xam nag ñu ngi fi kër goo dem am na borom xam-xam. waaye dafa am benn cër goo xam ne ñun dañ koo am wàll. mooy wàll garab ñun dañ koo xam ñun Casamance. loolu suñ cër la. du dëgg. léegi nag loolu nag ñun lañ nangul moo tax dañuy dem. coupe bi dañ koy dem jëli ñëw indi ko fii ci réew mi Sénégal. mais est que dina yomb billaahi wa rabbul kaaba. est ce que barke Cheikhu Tidiane laa nii billaahi wa rabbul kaaba yàlla defal nañu loo xamante ne ci coupe du monde bi ñuy dem yàlla defal nañu maanaam si biddiwu jour yi loo xam ne amul benn biddiwu équipe boo xam ne am nga ko. moo xam si Afrique la moo am si Europe bi la moo am si Amérique bi la. ñu rek la yàlla defal loolu. Mhm. biddiw ñoom ñëpp dañoo tàkk. yi kenn mënu leen a fay mm-hmm. suñ borom mooy taal mm-hmm. léegi nag sëriñ si lay waxal de yu ndaw yi yu mm-hmm. tuuti yi nga xam ne dañuy nekk fi di tànkal ñi <laughs> joxuma si kenn autorisation nga ciy wax coupe du képp ku ciy wax gone yi la wax ku ciy wax ma radd la maanaam dootoo génnati kenn dootul waxati ci yow. ci coupe du monde monde bi sëriñ yi ndaw yi waxal yaa ngi dégg bu baax jarartu min harihatin muhannada abban ila ashibihi kaasarada ñoom ñëpp ku ko si ku si génn wax danaa tëgg benn jaasa goo xam ne moom la ñuy al siifiyu jaase la goo xam ne maa ngi ko tëgg sa ind xam nga lu mu si pare mooy gone yi nga xam ne ñuy nekk fii gone yi sëriñ yi ndaw xam ne xamuñ dara xali fanaanul seen bopp yi mokk lañu alquran mhm. xawaatim sax munuñ koo dagg mhm. di tànkal ñi ku si wax danaa la dóor sëy fiyu boo xamante ne maanaam fa ngay jaaree danga am ñetti bàmmeel ci suuf si balaa ngaa dee. coupe bu ci kenn wax. bu ci kenn wax. kenn ki wax na. joxuma si benn autorisation benn sëriñ mu ci wax. Mhm. sëriñ ñu ndaw yi nag laay waxal. si mhm. internet yi di tànkal nit mhm. ku ci wax yor naa benn sayf yu benn jaase boo xamante ne maa ngi ko tëgg sa ind xam nga lu ma ci pare ku ci wax danaa la gasal ñetti bàmmeel est-ce que mos ngaa gis ko am ñetti bàmmeel danaa dagg sa loxo danaa dagg say tànk danaa dagg sa baat. muy ñetti bàmmeel di nga am ñetti bàmmeel bu ci kenn wax man maa ko wax man Kounkandé muy benn maire boo xamante ni dañu jékki-jékki gis ko ci benn bâtiment troisième maire bi presque ñu ngi ko gis foofu vers cinq heures du matin mais kenn xamul foofu lan moo ko fa yéegal d'après ñii ñu ngi naan nit la ñii ñu ngi naan du nit ba sapeur pompier bi mu ñëwee sax amul woon audace su yëkkati maire bi parce que fenêtre yëpp dañ ko tëj bi nga jàngatee loolu ci wàllu baatin mën nga ñu indi loolu ay leeral ñi naan jinne laak yu kenn xamul. waaw xam nga tey dinaa leeral ñoo xam ne. Mm-hmm. ñu siy wax ñu si bari du seen domaine. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. maire boobu ñu gis si parentère bi kooku nit njaay la. maire bi waaw du dëmm du jinne waaye dafa wéradi. maire bi. maire bi ñu fekk ci parentère bi. parce que sàppoor ñëw di ko sauver di ko wallu. nit njaay la du dëmm du jinne. mais daa wéradi mm-hmm. nit ki wéradi nag buñ ko waxee mooy koo xam ne anu tax xelam mm-hmm. waaye nag li biir si biir loolu dafa am lu si laxasu loo xam ne adduna bi ñi di seetaan programme bi yëpp xamuñ ne mbiri tëddee mën ko xam ni mbiri tëddee lan dafa am benn waaye joo xam ne ab kàccoor la dafa dem si sëriñ ñu tegtal ko ne ko da wut benn màggatab dof boo xam ne wérut nga fexe ba jàpp ko di tëdd ak moom da am alal bés tàngam boo ko defee bës nangam danga nga am alal léegi nag kàccoor boobu nag bu mu jàppee maire bi maanaam tey def koo tëj ci biir néeg bi yaa ngi dégg. bu du mel ni lu koy sakku waaye xam nga tey ab koo xam ne ku wéradi la nga tëj ko ci ab néeg. Mm-hmm. di ko sàkk ba benn période yoo da nga génne pour dox sa soxla. Mm-hmm. moom nag si la jéem a ut benn pexe jaar si palanteer bi parce que palanteer bi yéen bu ngeen jàngatee palanteer bu ñuy puus la. waaw. du kuy naaw du ko am ay laaf ndax bu doon kuy naaw la bu naawee ba taxaw maanaam si palanteer bi war naa mën a naawaat ba wàcc. <laughs> waaye nag wax bu yàgg dafa ko moom. borom xel yi buñ xoolee war nañ mën a xam ne maire bi si nii néeg la génnee ko bëggoon a boppam rek ci taw taxaw si palanteer bi. Hmm. est-ce que yaa ngi may dégg bu baax xaw ma maa ngi maa ngi maa ngi lay dégg bu baax a baax. xoolal maire bi nu mu toogee rek mënta jaar si kaw terrasse bi mënta jaar si suuf. parce que ñu ngi bari ñu ngi amoon problème mu fan la war a jaar ba yéeg foofu. bépp kàccoor daal moo ko yab fat si néegam foofu si biir kër gi foofu. loolu lañ nit ñi war a lijjanti kan moo fat maire bi foofu yaa ngi dégg. Mm-hmm. di sàkku maire bi loolu la war a lijjanti. Mm-hmm. léegi nag am na si ñoo xamante ne tey. Mm-hmm. dañuy tëdd ak ay dof pour am alal xaw ma nag xam nga loolu. tëdd dof waaw. am na ñoom dañuy tëddax dof loolu xam-xam bu wér la am na ñoo xam ne dañuy tëddax dof. jour nangam tel nangam heure nangam xaalis wàcc si ñoom ñam alal léegi nag maire bi boo gisee mu ci moom daa am bopp waaw dafa lu nitu neen am na lu mu àndal yaa ngi dégg li ma àndal nag loolu moo ko sauvé moo tax sénégalais jot ci information boobu. d'accord kon dafa am ku doon sàkku maire bi moo waral maire bi jug daw di sauvé boppam. di sauver boppam ba taxaw si palanteer bi. léegi d'après ñu doon wax naan maire bi dañ ko gis mu takk benn benn benn téere téere bi di tàkk ci bopp bi loxo yi def nii kii jinne la. waaw xam nga jinni doomu aadama dafay jinne dafay yore melow doomu aadama hmm. mais maire bi boo ko xoolee nga xam ne kii du jinne loolu de a koy xam. parce que lu tax dëgg la mën naa am galaaj bopp galaaj bopp ñëpp dañ koy am man am naa galaaj bopp am na ay galaaj yoo xam ne si bopp lay nekk. Mhm. lu lay protéger la. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. pour doo pour am na yenn galaaj boobu ma nga koy takk. di jëflanteex ñoo xam ne ay si muuminul jinni lañ jinni yi sell yi. wala maanaam shayatin jinni yi. galaaj yooyu dañ koy def si ay bopp. mais par rapport boo xoolee bindam bi melokaanu loxo mi. maanaam nit la koo xam ne maanaam anut ak xelam dafa wéradi. Hmm. gars yi nañ bàyyi buñ gisee benn affaire bizarre rek ñu bëgg ko tam dëmm. waaw parce que ñii ñu ngi naan jinne la ñii naan dëmm la. du dëmm. nit njaay la du jinne mais am na lu mu àndal moom maire bi. Hmm, hmm, parce que tey. doomu aadama boo gis. am na maanaam ay moominul jinni yu muy àndal. ñoo xam ne dañuy solo si jëmmam ji. ma jox la benn misaal tey da ngay gis kumkaan man par exemple damay mel ni tubaab. waaw waaw. parce que dama am ay jinni tubaab yoo xam ne ñoo may dugg par exemple ma mel ni tubaab. par exemple ma mel ni maanaam nit ku ñuul. Mhm. parce que sama jinni nit yu ñuul yi par exemple ñoo may dugg ma mel nu ma neex mën naa ko mel. Mhm. yaa ngi dégg. bu baax su ma nee suma kanam bi mën naa ko changé mën naa yore bëti ñuul kukk wala bëti xonk mën naa ko yore. yooyu yëpp parce que dafa am ay jinne yoo xam ne dañuy solu si doomu jëmm doomu aadama bi. Mhm. même yéen ñi fi toog ñii sax am ngeen ay jinne yu ngeen àndal. Ah. maire bi am na jinne bu mu àndal bu dugg si jëmmam ji waaye lu ne si gannaaw la gaa yi war a lijjanti laala la doon. waaw yaa ngi wax yaa solo. loolu la ñuy njëriñee d' abord kan moo jàpp maire bi kidnappé ko fat ko si biir néeg bi loolu dañ ko war a lijjanti. Mhm. mais am na ñoo xam ne duñ si wax. waaw parce que seen xam-xam màccut foofu. Mhm. àggul si dimension waaye am na kum nekkaloon si néeg bi kooku génn bi mu génnee am ut pexe pour rëcc moo taxoon mu taxaw foofu si palanteer bi. parce que li nga wax ni kenn xalaat kenn kenn xalaatu. est-ce que mës ngaa gis ku xalaat loolu. déedéet nii ah, ay jinne la ñii naan dëmm la ñii jël fa ay ay cuuraay di di taal ak yu kenn xamul. léegi nag ma ñëw si côté maanaam nitable nit la koo xam ne jëmmi doomu aadama la mim xala mim delloo yore ma mère bi waaye nag am na loo xam ne si moom la bopp ko. maire bi maanaam boromi bagage la boo xoolee nga xam ne dafa am ay jinne yoo xam ne maanaam hmm. dañuy ànd ak moom hmm. te lu ko gën a sowe sax jinne yooyu noonu mi àndal ci lañ bokk hmm. waaye nekkul koo xam ne dëmm la du dëmm ndax borom xam-xam mag dafa wax mu ne nit ko tam dëmm te du dëmm rek boo dee safara nga jëm ah. muy Seydi Hadji Malick radiyallahu kon dañuy maytu maanaam di teel a tam nit ki loolu baaxul dama koy tere képp ku koy def boo dee safar nga jëm. Mm-hmm. léegi nag borom xel yi nag ñoom laay waxal nag nañ dawal maanaam film bi li ma jot a expliqué. Mm-hmm. am na si ay bor Sénégal ay borom xam ay borom xel ñoo fi ne. urul alba bi ñoo fi ne. Mm-hmm. kon nañ jàngat ñu xool maanaam système bi fan la jóge ko. kan parenthèse bu mu toogoon noonu kan moo ne foofu ci néeg bi ku fa ne. ak heure bi mu génn. ak heure bi mu génn kooku da doon sauver boppam moo tax mu jaar foofu si parenthèse bi. mais sauvé nañ ko parce que léegi nag gars yi borom xam borom xam yi danañ topp enquête bi. Mhm. ba xam maire bi lu ko indi foofu noonu at lu tax mu taxaw si kaw toit bi loolu am na ñoom Sénégal seen xel màcc na. Mhm. ñoo la ñuy bàyyi nag ñu dawal film bi doxal. Mhm. lépp dana leer. mais nag na gars yi jàngat li ma wax man. du dëgg. dëgg la waxtaan bi neex na torop nag mu xat lool nekk ci ay programme mais may nañu même bu dee benn trente minutes si jotam. ñu lay sant bu baax a baax di la bàyyi nga tàggatoo ak lan ngay ñaanal ak ban message ngay lancé jeunesse bi ci fii ci People 221. lu may lancé jeunesse bi. xéewal gu wàcc na ci réew mi. képp koo xam ne danga nga amoon ay jafe-jafe. jafe-jafe àdduna. Mhm. seen jafe-jafe yëpp dañ na jeex na bis ni tey. alhamdulilah rabbil alamin loolu nag dañ koy santee suñ borom subxanahu wa taala ndax moom mooy maye. Mhm. jeunesse yi doon souffrir yëpp amuñ lu ñuy def ñi am ay problème yëpp jeex na ci kattanu yàlla lépp saafara nañ ko. allahu danañ nekkaat si nuñ nekkoon ci jàmm. ñi ñi dañu am liggéey bu baax ñii danañ am ay travail yu baax. ñii mhm. danañ fa seen xaaju ñii danañ dimbali seen njaboot. gannaaw loolu. dama ne réew mi Sénégal dafa am lu ñu yàlla defal. Hmm. loo xam ne tey si Afrique nuwaar gi fii réew ma def yëpp Sénégal rek moo ko am kenn amu ko moo ñi ma la limal sànq. Hmm. ñun am nañ Cheikh Omar Foutiyou radiyallahu anhu hmm. am nañ Cheikh Ahmad Bamba Mbacké radiyallahu am nañ Seydi Hadji Malick am nañ Mame Alhaji Abdoulaye Niass am nañ Seydina Limamou Laye boo demee si Afrique noire gi même sous région yi ñu gën a jamono ay Gambie Mauritanie. li ma la limal nii amuñ ko. ñun rek ñoo ko am. Mhm. kon ñun tey dañoo nekk réew moo xam ne tey kenn waruñoo raw. Mhm. si zahiran wa batin mhm. léegi nag lu may dénk nit ñi. dañ bëggante suñ biir. te bañ maanam di noonante wala di yàqante loolu baaxut. tant que ñu ngi noonante di yàqante rek dañuy tar dellu ginnaaw. mais bu ñu bëggante suñ biir ku ne nga yéene ko jàmm rek. Sénégal ca kaw ca kanam lu ne mën nañ ko am ci barke yonent Yàlla sallallahu alayhi wasallam alhamdulilah loolu laa doon tàggoo kon sénégalais yi mhm. ñu ngi ñaanal ñëpp di ñaanal ñaari am di jàmb yi mooy mhm. Macky Sall ak Ousmane Sonko mhm. ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla sàmm leen yàlla musal ñu ci balaa yi ak fitna yàlla nañ ci yàlla musal yaa ngi dégg kon loolu laa doon mooy dénk sénégalais yi kon yàlla may ñu ñuy jàpp dem màggal màggal safar bi di ci safar bi ci jàmm képp ku manqué woon paas yàlla na la ko yàlla may ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xam ne nag xam nañ nañ jéem a maanaam dimbali ñu xamut ñu jàppale leen ñu dem màggali ci kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu amin jërë ngeen jëf euh, ñu amoon mbégte ci dalal ko waxtaan bi neex na trop nag xam naa du ñàkk dinañ ànd ak moom couvriral leen màggal gi parce que spécial màggalu Kunkandé maa leen ko wax xaar leen ko fii ci people 221 fii lay xewee ñu ngi leen di nuyu di leen jox yeneen dig daje fii ci people 221 jërë ngeen jëf